Assane ah sa génn sa ganangoog Mbacke ah. Balla mm-hmm. waaw sama gan a ngi nii su ka muy ajara maanaam kii sax muy Serigne Modou astu Mbacke mm-hmm. jóge Touba ñëw léegi eh, eh, si takk soo ñu fas yéene waxtaan ak moom waxtaan wu yaatu ndax eh, moom victime la mm-hmm. ndax it wax dëgg yàlla boo demee si groupe WhatsApp yi ñu naan sëñ Modou Astou nii daa war a leeral ñaa xoolal poste bi mu Modou Astou loxoom dugg na ñi naan sëñ Modou Astou ba mu demee heure bii la dem ku ko yóbbu ñi naan nanguut wax ku ko yóbbu ñaa photo bi daaw la woon ñi naan noo ren si koor gi loolu lépp ci victime boo mhm. xamante ni ñu ngi koy teg si kawam ak kàddu yoo xamante ni jàpp nañ ne du kàddu yooyu loolu lépp li ko waral nag dafa seeti woon sunu bàyyi Antoine euh, moo tax tey gars yi ku dem dikk ni papa waaye moom bi mu demee ba dikk waxagut papa waxagut dara euh, sëñ du ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax Assane di mm. nuyu Soga Mbaye. di ci plateau El Hadj Sandio sëñ Omar Gueye di nuyu nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci biir réew yi bitim réew. Mm-hmm. di am lu ma fi kaasoon ay jamono mbirum ndox ma ca saam. Mm-hmm. yaakaar naa trois mois yi. wala 4 mois tey laa door a xëy sangu suba teel. Mm-hmm. waaw 4 mois yi tey laa a xëy sangu te li ma ko may sax damaa toog ba 2 heures du matin ma jóg daal di dékk ci sama salle de bain. Mm-hmm. pour bu ma xëyee mën a sangu ndax damaa tijjur mi ne bàyyi ko doon dégg muy muy xelli. Mm-hmm. pour ñu xam ni léegi ndox ma ñëw na biig. ñëw na biig waaye xam naa ne xelleegul bëccëg guddi la xelli. te la waral muy xelli guddi itam. mooy ñeneen ñi nga xam ne am nañ ndox normal ñoom bu ñu nelawee utiliser tuñ ndox ndox yooyu na wala ngaa ñëw ci ñun mm-hmm. malgré Touba ci kanam am nañ lu leen ci sëñ koy def mm-hmm. ba génn nañ ci benn million waaye daan ñoom nañu vigilant ci seen bopp mm-hmm. nañu vigilant loolu maa ngi leen koy dénk nañu vigilant ñoom Touba ca kanam parce que ñooy kuréel sël guy yëngu ci fii ci ci lu ñu xam ca Touba te seen mbir maanaam amu lu ñu nit di xebet ak sikki dugg nañ ci ñoo xam ne dañoo réer ak population yi muy ñu yor ndox ma kon ñoom nañ vigilant ñoom nañu vigilant génne nañ seen alal nañu wisinaa ci sàmm seen alal génne nañ seen alal nañu wisinaa ci matériel yi ñuy jënd ñu fexe faa teg koo xam ne duñ bàyyi ba gudd ñu dem komplo kooku jël matériel jënd ko feneen mm-hmm. loolu la raison muy bàyyi san mm-hmm. comme li nga wax barki mu dama dem seetaan ci seen émission bi mm-hmm. ma gis allez <laughs> allez <laughs> man kat dama leen numé rek. la. <laughs> Euh, sëñ bi xam naa ni euh, lu may loola. <laughs> moom it ñoo xam ne euh, bari na ay groupe whatsapp yoo xamante ni dañ koo tijji moom moome leen. Mhm. ñoo xam ne ñu bari lañ wax dëgg yàlla nekk ci ginnaawam. di ko ànd ak moom ci liggéey bi ñoo bi ñu jékki jékki daal gis aw photo muy lu leen jaaxal lool sëñ bi bi nga jekki jekki gis photo bu full fi nga toog lan nga yëg. yëguma dara lu dul jàpp na lu dara. Mhm. li ma jàppee na dara la mooy bu ma leen seetaanee yéen ngeen def ci plateau laa xam ne lu sérieux la. Mhm. Ah, fi nga ko gis ci groupe WhatsApp yéeg non ça me dérange mhm. parce que photo groupe WhatsApp photo bi man ñu ko njëkk gis ci laa bokk ndax dama partage vidéo boo xam ne dama ci opposé Macky Sall di ko wax lu dul noonu ci benn groupe WhatsApp ñu ko kosee euh, vidéo bi boole ko photo bi mais ça me concerne pas léeg-léeg maa ngi ko teg ay café créé ma avancé di si yéen daal ci plateau plateau spécial nag li li na mais li ci sérieux mooy wax ñu dafa lënt parce que lu tax mu lënt mooy jëmmi dégg naa ci fii ku ne dañ ne sëñ bi dugg a leeral pour ma leeral ñëpp mu leer leen fajxal bay na naa wa bay na kamaa fi laa nuxuli foo nax wala anta makaanan si wan man amul menn mbir moo xam day yegg si fi saase ma def réaction fi saase du ma ko def lépp lu mën a doon la ca Moussa waxoon Firawna laa cay jiital maanaam dañuy am waxtu koo xam ne fa la ñuy dajee waxtaan la ñu war a avant boobu kenn ku ne waaj jël say matuwaay parce que ñi ma ko seqal ñoom jël nañ seeni garde am dama kilifa gu daan wax ni ay nit bu ñu jékki-jékki ñëw fi yow toog xamal ne avant ñu ñëw ci yow toog nañ jël seen buumi xel yow la ba nga dëgër dikk daal di koy gàll wax ak yow na bala nee na bu ñu waxee bala ngaa répondre fexee la jël sa yow sa xalaat hmm. sa bopp ca buum gañ lay woon fañ doon ba pare door a wax loolu moo waral kenn ku ne di wax man waxuma ci wax ji man naa bàyyi ba wax ji teer parce que wolof day wax ne tontu moom du sa farox mm. saa soo leeralee rek mu leer léegi dana baax nga may ma benn cinq minutes rek mm. ma leeral dem ji la ko waral mm-hmm. photo boobu lu yàgg la te bu photo bi fuloo bi mu génnee man di ma ci jëkk a jàngat ay weer la ah, du ay at ay weer la non non boobu boobu wóoraguñ non boobu wóoraguñ ay weer la mm. non gis naa ko photo bi kay ay weer la bi ñu ko njëkkee wane man la ma gis mooy photo bi dañ dafa fulu ba boo ko xoolee photo bi ndax dañ ko photo woon si ab téléphone lañ maa ngi ñëw xaaral ma egsi rek xaaral ma wax la rek si ko man xam naa bu baax dañoo photo photo bi mu fulu bi lu ñu hmm. hmm. ful ko hmm. c'est-à-dire maa ngi sant yàlla du ma ma waaw maa ngi sant yàlla man du ma tàgg sama bopp ci dara ci dara bi mooy bi te photo bi man maa ko sàkku man maa wax ki ma àndal photo ma man ki ma àndal moom moo ma woo kooka ah dégg naa muy wax di wax di wax. waaw kooka xam amul tur moom. nga lu may bañ. Hmm. man li mu bëgg xam naa ko. Hmm. maanaam jaaree ci man nit ñi xam ko loolu laa ko doon may su bëgg koo xam na rampe pour nit ñi xam ko. du sa xarit. te te déedéet maanaam ci sama xarit man boobu miinu ma ko dafa ma woo. wax ma ne ma Ant damaa bëgg ñu dem ca Antoine. Hmm. kooku nag nag dégg naa dañuy woote dañuy woote dañuy danga bàyyi ma leer su ma leer leer dana leer dafa mën a nañ dem ca Antoine ma ne ko baalu politique mu ne politique yow sama sëriñ nga maa ngi gin ci Mamor Diarra mi ñu bokk Mamor Diarra moo jur ko jur sama baay Mamor Diarra moom moo nàmp jox Sëñ Tuubaa mook Sëñ Tuubaa ñoo bokk nday ak baay mu ne Mamor Diarra mi ñu bokk laa lay génn laa lay génn du politique bu dee ay wor naa nga ma ki nangam ci lii ma sax laa la wax bi ma ko joxee loxo dana ma santoo ma ne ko Mbàkke ki ma àndal moo ko ne Mbàkke la sant fekk mu ngi yor kurus ni doon julli mu changé ko def ko ci loxo ndeyjooram def ko ci loxo càmmoñam daal di may jox ñaari loxo daal di sujjóot daal di may teg sees bu mag bi xormatan kama kaana yaxrimu ahlul mbàkke fi fii maa raa al murid comme ni nga xam ne am murid bu gisee ko sant mbàkke noonu la koy ormaale noonu la def comprendre nga bi ñu toogee waxtaan muy wax ci wax sëñ Saar yi parce que xam ne ne ab ko sant mbàkke la ñëw seet ngeen dollu ci ne man jox na ma 5 millions. maa ngi giñ ci alxuraan ji ma gëm te gëmuma lu dul moom te tey dong jàng naa ci ñaar fukki si avant may xëy bu ma ko joxee yàlla naa yées ci askanu waaw. waaw ah jox na ma addiya. am naa am naa deux yaa ngi dégg. yaa ngi dégg. yaa ngi dégg. mais man de loolu addiya la de joxul million 300000 la ma jox. 300000 la ma jox. comprendre te man te man personnellement sama waa kër ñi ngi may seetaan ba may xëyee bii ci guddi bi may tëdd jël naa soxna. dénk jël naa si ñu may ko programme man su ma doon tracé man ak ñi ma toll actuellement fi ma toll ci réew mi te attention maanaam li ñuy wax niveau d'étude moom fil islam yi ku ci kawe laa ku ci kawe laa maanaam xam-xam yi ñuy jàng ci wàllu islam ku ci kawe laa lool. Mm-hmm. man suñu ma doon jënd alal du bare bare lañ may jënde mm-hmm. parce que su ma doon jaay mën na jar lu bari. Mm-hmm. waaw su ma man na maa jar lu bare bare bare bari benn trois cent mille francs la ma jox. ñu waxtaan ci sëñ Saliou. mu daal di jóg dem. bi ma yëg ci ab waxtaan

boo jaar boo tourné woon fii am ci ko xam ne boo ko yóbboo ci entourage boo ne kii kan la ma ne nu mu tudd man booba ci ñooñu laa wax la las na amin hum ci jamono bokkuma ci ñoom boobu maa ngi wax ci groupe whatsapp bi nii rek muy jàll mais di def chronique yi ngay def di yi muy jàll léegi léegi nag li ci am solo groupe yi léegi moyen de communication la boo xam ne waaw télé yi sax ëppatun ko doole mm-hmm. lépp loo fay wax mën na egg ci buur parce que bari na ñuy jàpp fa leen yi mm-hmm. kon tey jii sa wax jooju mun na egg ba ci Antoine mu ne kii de kat c'est intéressant na d'accord mais léegi yow mën nga accepté na ñuy wax ci groupe WhatsApp ñëpp Antoine xam na fi may waxee mooy nit moo lay xam ah. moom soxlawul di xam ñëpp ah. nit moo lay xam ah, nekk intermédiaire a wéral intermédiaire sa digganteem ak Antoine mm. yóbbu la ci Antoine Antoine du la woo ci kanam nga toog te amu ci intérêt pour man. Mm-hmm. Antoine woowu ma man ba ma demee yëg naa Antoine woowu ma. man de kenn dañ ko yóbbul. Antoine woowu kon ki lay yóbbu am na ci intérêt. ki may yóbbu am na ci intérêt bien que dama am ci intérêt mooy. Mm-hmm. bañ ci jógee su fekkoon ne def naa ñam fa yóbbu woon def est-ce que da gis problème doo ko dégg. li tax ñoom ñoo fa yóbbu woon ñoom doon attaque ñoo may ci guddi yi te loolu ay weer la ci ginnaaw lu jënd ñu ko boobee jamono néeg ba tey jii ñu door ñu door def attaque war nga ne xalaat nit nooy ànd ak moom ba pare di di ko xas loolu mën naa ne loolu mën naa nit mënul ànd ak moom di ko xas léegi nag léegi nag waaw d'abord euh, euh, bon maa ngi lay euh, kiiwaat encore di wax ni bu ma la xoolee ngay wax ni damay xam ni peut-être nit la nit nga koo xamante ni kii wax nañ def nañ loolu la naqari. parce que Serigne Touba Xaadimu Rasuul lii mooy li ma gën a métti sama. waaw non non non ma déggee ma daa toog. waaw ne ko wóor Seex Baar yàlla dana la weer. waaw. Omar Gueye man bokkuma ca askan woo xam ne ñoom seen i dara war na cee ne. mais attention rek may may ma ma booba li kulli makaanin maxaal fa lahu nisaamun wa maa yataallaqu bihi lépp barab la ñu waxtaanee luñ sof ci waxtaanoo loo ay dalaay lañ ci jël. maanaam ay exemplaire nga ci jublu. yow yaa ngi nii maa ngi nii dañuy daje kër Cheikh Baar tout temps. lan lañ mës a jëflante moom ma war ko ci. wax ko publiquement am nga ci fa weer buñ génnee may waaw léegi non non déedéet Cheikh ça va ça même loolu amul c'est-à-dire mooy pour nga xam ne man non non non dama expliquer dama ko bëgg attention bu wax na man man war bokkul ci sama mbir non waxuma waxal ci micro bi waxuma yaa ngi non sëñ Modou Asta dé demal xala non non non man non dafa wax interpellation dama yaakaar dañu taxam dama yaakaar muy sax ci ma ma surga xala ma toog wan ne man ba nga toog yow jël benn kàddu kàddu xidaa daa dama koy askanale loolu loolu pourquoi waaw fan la tegu loolu. bi ngeen tëj plateau bi loolu mooy mooy dañ ko tëjee. sëñ maa jigéen sax maa ngi xalaatam ma di ma conseil ma warkat gis man ba nga xam man nga xam pour nga xam man ma xam man personnellement duma koo xam ni nit day bëgg neex nit tax nga bëgg a jël nit dénigré ko ngir bëggal doomu aadama mm-hmm. te loolu bu seex baara génnee dana ko naqari mm-hmm. parce que li tax ma di ko naqari man mii mm-hmm. damaa mun a doon surgëm nit ci gàttal moo xam ko sant Mbàkke moo xam ko yor alal fii ma toog wax ak yow képp koo xam ne ci adduna yaa ngi may seetaan am na seen intérêt su ndaw suy jëm si ci man bis ni ki tey ñaan naa la ngir alxuraan dakkal ko bu ko defati ku may jëriñ dara ci adduna ba ko eh, déedéet non attention attention dégg nga ma wax man yaag addiya eh? damaa judd ci askan wu ñu koy jox hmm. mais yaakaaruma ko xam nga tax yaakaaruma ko hmm. damaa jàng am xam-xam xam-xam boobu laay jëfandikoo man maa toog publiquement ñëpp di dégg daaw baren ma ne Macky du doon président de la 2024 hmm. vidéo yaa ngi fi ñuy waar waar ngeen sëriñ si waaru leen fan laa teg loolu fan laa teg loolu. waaw man maa toog Sénégal dana. non may ma ñëw maa nga déglu tamit. parce que pour émission bi. Hmm. Euh, mën a mën a mën a mën a mën a loolu. waaw li nga kon may ma c'est que li nga bëgg sinon li nga bëgg mu leer. Hmm. du leer du leer. Hmm. te bu te mën nga leeral li nga xam ni moom nga bëgg mu leer. d'abord ma dafa am loo xam ni moom laa lay leeral ci njëlbeen bi. victime di net lañ wax maanaam le fait que ñu teg la fi. sooy bi mu lay jëli. dafa gis ëwti ëwtee gi nga xam nit ñaa ngi koy def. sooy bu ku ci la. may ma. parce que wax yi nam dégg naa ko. waaw may ma. ku ci commérant la. parce que gis na wax. déglu ma rek waaw dama déglu ma hmm. na loolu mu ne sëñ bi de victime la. victime la dañoo leeral waaw déglu ma nañ ko nañ ko indi. ci li nga xamante ni bi mooy kii bi na ñëw leeral mbir yi. Hmm. parce que photo bii la ñuy teg ci groupe WhatsApp yi. Hmm. di ci wax. loolu mooy li nga xamante ni bi mooy mbir yi xam nga. ojo yi nga xamante ne bi moom lañ ca toftal sax tegu ko. Mm, audio yi maanaam dafa wax noonu rek comprendre nga. daan ne ngi nii nekk ak mm-hmm. donc nit ñi dañoo joxe seen xalaat. Mm-hmm. maanaam ñi joxe seen xalaat mën naa am. Mm-hmm. xamuñu da nga ñëw tey pour xamal léegi nag man pour man nii nga ko nii nga tàmbalee boo ko continuer pour man li nga da ngay yàq li nga war a def problème nga leeral dégg naa nga analyse yow waaw nga ne sëñ bi da doon ab da doon wax ni moom bokkuma ci pastef bokkuma ci sonko bokk sëriñ jox ma benn jox ma jox wala da nga may jox da nga may nga may jox yow mm-hmm. yow Omar da mm-hmm. boo xam ne man damaa bokk ci mm-hmm. nga euh, la laa adhéré xam nga nit bana wax te yéen wax ngeen ko fii maa ji ngeen laaj na ma ko fii xanaa demoo bi ñuy organiser moo daat Mm-hmm. loolu mooy li ñuy wax man doo nangu ma wax yaa ngi dégg doo nangu kan man ma bàyyi ma wax gis nga Omar mm-hmm. man amul lu may bañ ci yow nga wax non xam nga tax amul lu may bañ ci yow nga wax man gis nga Omar da ngaa toog ci dans la public kenn seexalu la nem nga toog adduna bépp di la seetaan mm-hmm. adduna bépp di la seetaan nga toog na ko war Seex Baara waaw man maa ko wax yaa ngi dégg xam nga loolu yaa ko wax xam naa ne yaa ko wax. mais loolu dafa normal mais bu mu doon làqatu du mu ko xam nga ndax normal day dëtt xam nga da ngaa foogoon ne man problème yii nga ñii di wax day dëgg ba man du ma mas a ñëw ci télé wala rajo bi di leeral. non kay moo te man gis nga bu fekkoon ne man. Hmm. bu fekkoon ne man. Hmm. ma transmet man dama koy assumer hmm. ëpp sama am-am. fuuf yaa ngi yokk waaye lu ma mën a amal sama bopp. lu ma mën a amal sama bopp. loolu loolu du tax sama jikko. su ma doon bay changé jikko te mënut a ñàkk xam xam nga lan lay changé Umar. mooy damay dem ci koo xam ne man dana ma a jox alal ju bari. yoo xam ne man ku ma gis gisaat ma wala ku ma xool xoolaat ma. ku ma teg bët xam ne man fa ma nekkoon. mais gën ngaa a xool tey nag bi ak bi kan man kon yow yow xamoo ma kon xam nga xamoo ma xam nga xamoo ma xamoo ma yow ah. man Touba fa laa bokk fa laa dëkk mboolem suuf fu mu valeuree bu ñu koy séddale man su ma doon nelaw dañ dañ may dencal samay këyitu di koy jox ma ko mm-hmm. te foo ci gis rajut ba ci hôpital ba mm-hmm. ko moom mm-hmm. ba ba ci ba jantul Mahwa sama ko moom pale bu ñu fay laal sama maama ko moom yaa ngi dégg suuf dama koo am ba mu doyal actuellement néew na nit di bëgg suuf su yaatu pour nga xam ne man doonum las naa faqiiran wala miskiinan fa ana xaniyyun min al agniyaa'i naskurullah bi haza mm-hmm. ñu ngi sant yàlla ci loolu yi mm-hmm. dégg nga mm-hmm. saa soo koo ko gis muy fréquente man moom du may fréquente ak ak fréquentation bu mu mën a demee na nga xam ne yàlla am fu yóbbu ak yonent bi ak seex bu mu seq ak man xam nga la man du ma toog xaaral maa rek man du ma toog du ma toog man ci ci fii ci Sénégal nii défendre ngir Seex Baara génn defe ku a fës amul ngeen ma fay ak ak seen war yeneen i yeneen i zen war nañ ma ngir loolu mm-hmm. léegi nag ban critique lañ am mooy man keroog keroog Cheikh Bara non non mais il faut nga bàyyi ñu lay relancé. il faut nga bàyyi il faut nga bàyyi ñu lay. ñu lay il faut gis nga Omar gis nga Omar loolu Omar man gis nga Omar. mënoo fi woo kii ba pare mais la koy defaat bañ ma wax ak moom. déedéet ma tudd Alès boo dee mer nga mer. boo dee mer nga ma amul mer looy wax nga wax. non non mer man maa defaan sama bopp man maa defaan naa ci fukki at man judd naa ba tey jii man maa ngi lay war naa neex a xool. waaye sëñ bi nga xam man man man nga ne yow neex a xool. déedéet yow neex a xool gi ngay wax. man loolu laay ñaan yow man daam yow man bul jàpp ne man daam yow bul jàpp ne man man yi ngay yi ngay def bul jàpp loolu yi ngay yi ngay yi ngay yi ngay li ma lay ñaan lenn la li ma lay mooy man mooy boo taxawee ma tey ndax ngaa xool hmm. kon yow xamuloo ma xamul tax xamuloo ma hmm. man ba ma amee oto xaw ma politique hmm. ba ma amee kër xaw ma politique téeméer rakk yi ngay dégg ne moom la Mamor Diarra dinaa fi laa nit ba mu ko daan defee ma nga sama biir kër man damaa caatum kër ga kon man du kon man du ma baadoo koo xam ne bis na tey léegi nag am na ci loo xam ne il faut nga comprendre ko gis nga di xëy di sens ñoo ñaan yàlla ndax am na ñoo xam ne sens ñu dañuy deltu ginnaaw ñii ngay di sens nag changement boobu yi dañ koy sant yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa mi ñu ko defal man Omar su ma tëddoon sama kër déw ma dikku ma problème damay dund comme ni ma ko bëggee parce que gis nga sama baay ci yoonu murit mooy Mame Less Camara boo xam ni boo doon lim fukk yi ñu ëpp aw nit ci ci yoonu murid doon ëpp ci histoire mënu ëpp ci génne. am na solo sëñ bi. pour pour mu leer pour nga xam ne man. ma koo xam ni. damay c'est que sëñ bi. dommage que temps bi dina jeex te euh, benn affaire dafa am. damay wax bay daaneel ah. uh-huh. li ma waxoon sax ëpp na sax li jàlloon ko rek ci télé bi. parce que ko dagg. waaw ah, parce que ko trimé parce que émission bi dafa guddoon. Uh-huh. dama ne képp koo xam ne laale nga war a nga war Cheikh Bara suñu borom dina la weer waxuma diw de boo ne képp waxoo benn nit waaw man ngeen doon waxtaane képp man wax ji ko moom jéggi la yow man ngeen doon waxtaane jéggi la booba man ngeen doon waxtaane boobu xam nga nag lu tax mu naqari la li tax mu naqari mooy man ngeen doon waxtaane ah. addaliilu yaaqusu fii makaani lesi taaqusu dalilan hasa huwa ka maqaalin la say taqulu maa léegi beneen bi nga xam ne dangay wax ci biir yi wax eh? ci benn jotaay bi ngay wax jógagoo la nga doon waxtaanee koo jàpp dalil moom la léegi beneen bi ci topp pour nit laa wér gis nga yow beneen bi ci topp dafa am dafa am succession des faits mm-hmm. man waxuma rek ci fi ñu toll tey ji ak giseem ak Antoine loolu sama yoon nekku ji mm-hmm. yaa ngi gis sama yoon nekku ji ku muy photo ku mu dul photool mm-hmm. mais dafa am benn xam nga dafa am ci bi ñu tegee victime du net groupe whatsapp yi nga kenn jotu la ci may ma de nga tontu lan moo war a laxtu boobu ci koo xam ne danaan danaan ne fàng. Hmm. kon bu mbir xewee am na lu ko waral. Hmm. parce que kii làqatu am na looy nëbb. Hmm. beneen bi ci topp mooy. léegi loolu ab laaj wala wala bi mbir mi ne ah, cëtt na mbir mi ne cëtt na jonn mooy danoo toog kër Cheikh Bara di def point de presse. Ah. ci biir point de presse bi nga am kàddu yoo xam ne du nga ko fa ñu bari dañ cee tiit. mooy parce que mënuñu lakk oto jàmbur mbir mi xal yi giifagul sax nga ñëw taxaw yow naan est-ce que dama yaakaaroon ni dafa lakk otoom ak ceci ni bëgg indi c'est-à-dire que nit ñi ni ko interprété. mën naa am ni ma ko interprété la nit ñi. mën naa am jublu mën naa am ma ko interprété xala ñi ko interprété xala ñi ko pla ñi ko interprété bari nan léegi nag la nga ci jublu yow yaa yow yaa loolu nga wax mais xam nga loolu d'accord yow yaa dama d'accord yow yaa ko xam am na droit def analyse ci mbir mën a la yow yaa man yow yaa ko wutee yaa man man beneen bi beneen bi stop beneen bi stop maanaam loolu bu amee ah mbir mi ne cët na jonn nga waxee noonu. ñu invité la fi nga changé langage. ban langage laa bi ngay nuyoo balaa nuyoo bay daaneel rek. nga ni bokkuma Pastef maanaam raxus ci Pastef ba set wicc ci koo xam ne ba ñuy def réunion di taxal modab yaa nga fa woon bi biñ jugee biñ jugee ci modab bi ah. ñu invité la édition du faj Walfadjri nga ñëw taxaw man ne jour boobu journaliste moo jum xaw ma yaa jum. waaye dañ la présenté comme chargé de communication du MODAP. chargé de communication nag. ci ab kuréel. mais ku fa bokkul du la ci du la ñaar bokkul ci kuréel jox ma rek déglu ma rek. léegi nag loolu nag bu amee ba mu jeex. yooyu a ba mu jeex. su ngeen bëggee mu jóg ci émission bi du ma jóg. groupe whatsapp waxtu wala loolu rek man na su dee di xam ne man na booy ragal na ci man man na whatsapp du wax mm. kon yow amoo information man sooy bu ma ah, yow li nga wax ne du dëgg xam ne tax du dëgg groupe whatsapp depuis 4 mois mm. presque dugguma ca ñoom ba ñuy ñaxtu sama ñàkk caa wax booba problème yi amagut. yaa ngi dégg nga gis Antoine ba eh, eh, man bi ma ñëw fii ci yéen ngeen may laaj may tudd Macky Sall di wax la ma neex booba gis na Antoine ba noppi xanaa télé moom moo gën a fàngaalal groupe WhatsApp dëgg la télé gën a fàngaalal boo tëkkale groupe WhatsApp ak ak ak télé mm-hmm. ku waxul ci groupe WhatsApp ba waxee ci télé yu baale nga WhatsApp mm-hmm. parce que c'est différent <laughs> moo tax fexe fexe gis ngeen gis ngeen seen jàng yi dee la ko làmb te bañ a topp seen xol mm-hmm. xam-xam bu ko nit dee jëfandikoo maanaam yàlla yi du ci dugg. boo leen niveau boo mën a am boo man ban niveau nga am jëfandikoo voilà danañ jëfandikoo seen xam-xam te danañ jëfandikoo seen xol mm-hmm. Mm-hmm. maas mbub mi may seetaan mm-hmm. woo na ma di ma dalal di ma dalal émission du bii weesu gi seetaan ngeen lundi prochain ba ma woowee ne ma waaw dama laa bëgg a présenter comme ko bokk Pastef ma a ko man bokkuma Pastef mm-hmm. xam man ma ko par li tax du ci bokk mooy mm-hmm. parti boo ci bokkee doxalin parti daf lay tënk mm-hmm. li tax nga bokk dama def xaaral ma àggale dégg ma àggale rek loolu dinaa ci ñëw waaw tënk ni ngay tënkee mooy bis day ñëw nga bëgg a def wax comme nga bëgg a wax sa xalaat parti bi duñ ci ànd dañ naan la bul wax bokk nañ rek benn bis benn site bu ma dalal ma publier jëm si Dakar kenn ci waa parti bu woo ma ne ma waxtu wii dañoo bëgg wàññi wax ji ma ne ko ñan ñooy wàññi wax ji mu ne ma waa parti bi ma ne ko yow kon waxoon man man man du waa parti bi mm. man sama nitug bopp laa ko xam damay am samay ma ko gisee mm-hmm. te taman mm-hmm. man li may wax sama wax mm-hmm. a ko kon bul ne ma parti bul ne ma nang man yooluma seen seen kii parti bu dee bu dee moo ci yóbbu yaa ngi ba ma ci yóbbu keroog ñoom Cheikh Bara moo jox na ko kaddu. ma wax ci kaddu gi ba ma fa jugee. comprendre nga ka ñu wax Serigne Khadim Mbacke Balla Dior moo ma woo di ma ñaan ma bëgg a dugg ci groupe de communication bi. Mhm. ñaan ma ci ñaan ma ko boobu maa ngi dawal jëm Touba ci péage bi. bañ a bañ bañ naa mën na la damay déglu de damay déglu wax la rek damay déglu wax la de. bañ a bañ xam nga tax a bañ. Mhm. mooy man jëmmi ay kuréel def lu tënk maasa na beneen journaliste. daan ma man bu ma il faut bindal Pastef wala Modap ma wutal la adresse. man waxuma laa la xanaa yow seetaan wal fajiri. laa la wax. Mhm. barki démb bindal nañ ma Modap. da ngaa démissionné Modap. Modap Modap ñu fay bokkee man remplir ma ko. remplir ma benn taxe bu bu ñuy bokkee Modap waaye pour dire la vérité mooy man duma boorkat las naa ci balaa balaa jeex duma boorkat tey nag lu ma doon suñu gëpp ma dem ba wala ma sàmba yaa ngi dégg parce que li tax mooy man damaa juddu ci askan woo xam ne boobu ba nga juddoo rek nga am dépasse ba nga juddoo rek nga am dépasse ba juddoo rek am dépasse waaw léegi man léegi man euh, léegi man bon après judd ci baay boo xam ne waaw may ma ñëw ku ci judd rek am dépasse waaw sëñ may ma ñëw jëlal laaj euh, léegi léegi man li ma lay li may wax mooy li may wax mooy xam nga lii yëpp tey mhm. euh, yow est-ce que xoolaat nga lan moo la ko indil. te kon jàpp naa ni yow ci sa jëm bi bopp. Euh, parce que dama suivre naa la suivre naa invité nañ la fii invité ci la fi du dëgg. Mm-hmm.

ñii ngay gis ci télé ak rajo ñu nekk ay leader kenn jàngalu ko ci. kenn yaru ko ci. Mm-hmm. ka ko jàngal. bàyyi ma ko jox mu jàngal ko. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi dégg. ñooñu ñooy définir sama ëllëg. ñooy sama ñooy samay sëriñ bu dee man damaa war a doon ak surga it man ni ma jàngal dong laa doon seen ab surga jeex na. waaw léegi man ma yeggal kilifa lu rëy rëy rëy moo xam kilifa diine léegi may ma yeggal sëriñ xam kilifa aada nga surga man sëriñ bu ma jàngal alxuraan ak xam-xam ñooy ma doon doon surga ñooñu laa doon. waaw léegi leer man seeka hmm. naa ni xamoon nga ni boo duggee ba génn. Hmm. te yow nee nga hmm. yow yaa photo lu. man maa ko ne photo ma. mais xamoon nga ni photo ba bu génnee. Hmm. mesuré woon nga naa. par rapport ak aujourd'hui par rapport ak nga xam ni. ma ne boo jàpp waroon nga jàpp ni. mën na indi jaxasoo boo ko jàppoon nga xam. su ma jàppoon ne luy génn la. wala bu génnee coow dana ci man problème mu génn sax aw ma ko woon. ndax moom ma man bañ. mu génn xalaatoo ni loolu bu génnee problème non non xam nga boobee jamono sa sa euh, alaaji sax. man damay koo xam ni. jamono bi may wax sama néeg la daan toog di wax di jël pliant di teg. comprendre nit ñi di ma seetaan. ba ay personnalité yi religion. wala religieuse ak ay personnalité politique. ñu bari ci ñoom daal di may woo damay daal di may félicité. comprendre nga man ma yëg ni li may wax am na njëriñ waaye la ko jiitu woon. kenn ku ne. la d'accord na waaw d'accord parce que la ko jiitu woon kenn ku ne xam nga Ousmane Sonko Ousmane Sonko bi muy ko xam nga lan moo parce que li wax noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. avant muy génn ci télé yeeg def émission. Mm-hmm. ci la photo woon photo boobu comprendre nga kon. bu doon jamono jii la ci lañ nit ñi di gën a mën a wax maanaam loolu dafa nekk loo xam ni comme ni audio Cheikh Bara yi dafay woon Cheikh Bara maanaam yow photo bi dalaa def ak ni sëñ bëte dafa yaa ngi dégg ak ni sëñ bëte dafa man ko ne a ngi sëñ yow léegi kon yow léegi sëñ bëte dafa Ousmane man indi ma fu ma ko waxee non damay <laughs> ko laaj dama koo laaj ah, laaj. Euh, laaj naa la ko léegi nag euh, léegi nag laaj sax man maa la may fii. même bu ma demee. Hmm. soo ma indee benn audio wala benn vidéo boo xam maa ne mënut a nekk candidat tagal ci ñu gis ko. Ah. kenn du ko gis na nga fexe ba am man maa ko def man toogal ñëpp ne sëñ bi ne ku ko def dana jox million man maa man uh-huh. man maa ni man maa ni Macky Sall mënul nekk candidat te nee na lu waa moo tëréwu ko kon dèjà ñun ñoo ko tere ndax ñun la ragal léegi Sonko Sonko day dem présidentiel. kon sëñ bi yow xam nga présidentiel victime groupe WhatsApp day dem présidentiel day dem présidentiel parce que ñun ah, ñun nañu def dajaloo ba Sonko demul prison day def lu ko raw ngir Sonko dem présidentiel. sëñ bi yow victime ah, def lu ko raw ngir dem présidentiel. la ñu def moom ñun ngir ngir demul prison danañ def lu ko raw ngir mu dem présidentiel Macky Sall la ñu def. ba maanaam demul présidentiel danañ def lu ko raw ngir du empêche Sonko mu dem présidentiel. dëgg la bu ma ñu ci dara. waaw loolu mooy sama loolu c'est que c'est que groupe groupe bu ñu la askan yii. ñoo la def groupe de d' accord man xam nga man na nekk. waaw mooy groupe whatsapp mm-hmm. daanaka lu bari ci li ma daan wax fi koy wax. Mm-hmm. di ko wax di ko wax ci formule boo xam ni. fii ci Sénégal néew ma kenn defu ko waaye maa ko fi njëkk a def. mooy bépp histoire bu ma la jëlal. fii ci buy am moo xam diggante Macky Sall ak Sonko. wala analyse bu Alaaji Sanjo ko def. Mm. dinaa la ko fàttali ca bi defee woon. Mm. loolu fii man Sénégal maa ko fi njëkk a def. Mm. maa gën a néew xam-xam maa ko fi njëkk a def. parce que ko def mooy. ña ma jàngal naxuñu ma. Mm-hmm. dañu ma daan digal deel jàng tey mokkal. Mm-hmm. soo mukkul doo añ. Mm-hmm. dañ ma daan jàng deel jàng tey mokkal ba mukkul doo reer dégg nga sa émission ya nga daan def di def di def sëriñ Gondo sama ajuróom ba yow yaa ma ko yàqaloon. waaw ma ko yàqaloon. ma ma ko yàq sama ma ko yàqaloon. waaw yaa ma ko yàqaloon comprendre nga. ba ma jàngee li ma jàng ñëpp dama koo maîtriser. dama koo këru daanaa ko wax sama sëriñ ma ne ko man su ma toogee ma ne ko alxuraan su ma toogee sama xel sama néeg man dong. te mën na dem këris. damay gis araf yeeg baat yeeg ni nga xam ne boo tege woon kaas weer sotti ci ndox ni may gisee kaas bi noonu laa gisee téere bi. ku mel man nag ku mel noonu man personnellement man ma ma ma seeral ko ñëpp. waaw adduna ak Sénégal. Mm. bu ci kenn jot ma doon ab surgaam wala di ku may xëyee ko kon bu ko kenn yaakaar. Mm. non li nga yaakaar koo xam ne li nga def am de. voilà li nga li nga def Assane. Assane tënku la may parce que temps bi jeex na. Euh, euh, li nga def am na solo. Mm-hmm. vraiment dañ la ci gërëm. Mm-hmm. Euh, parce que ñëw nga daa dee gindi indi ay leeral ci li nga xamante ni mooy mbir yi mais na nga xam ni rek. li tax ñu teg la victime du net c'est parce que dafa am group yi dañ ko doon partagé di ci wax son bu nag yooyu dañ koy indi teg ko ci table bi léegi nag am na ñu bari ñoo xam ne du ñu nangoo ñëw toog leeral comme ni nga def mais yow ñëw nga leeral nga li nga def loolu vraiment mbir la moo xamante ni bi mbir mu am solo waaw mais nag boo xoolal Omar mi sa waay la yaa ngi dégg yaa ngi dégg jar jar na kii andam ni donc andam ni donc la la yow waaw daf ne warkat foo ko fekk du jéem mel ni mbir mu may sottal moo tax las naa minal xaw inin bëgguma bokk ci warkat yi dëgg la mhm. jërëjëf dégg nga benn da ci doolu mooy man mhm. Antoine su doon transmettre xeeb naa ko xeeb naa ko trop xeeb bu dee ponkal man ak ponkalam gisuma ko mhm. parce que lu tax gisuma ko mooy l'intérieur Sénégal Antoine maîtrise wu ko parce que bu ko maîtrise woon manifestation yii di am dee it moor yi di am du am ministre yi lent yi yi maîtriser seen i réew ak seen i l'intérieur mm-hmm. France barki dem manifestation ba fa amul Sénégal te moo amu fa mm-hmm. loolu mooy maîtrise ci biir li ngay yor ci seen kaaraange d'accord mm-hmm. kaaraange ba demee ba nit ñay dee kaaraange amatul am na solo man Macky Sall mi sax maa mën a tax a transformé ak loo xam ne jeex na ba pare man damaa jug ngir nguur dégg naa nit naan waaw yàlla nga doon député bëgguma koo doon man dañ ma koy ñaan ah, bëgguma koo doon man mais bëgguma koo doon man na laa dab ëllëg bu ma dabee rek yàqal bu ma dabee rek yàqal su ma dabee daf ma yàqal su ma dabee daf ma yàqal su ma dabee daf ma yàqal woon nga ko si émission bu mhm. mag bi waaye it ni ko El Hadj Sa Ndiogou waxee rek émission bi son yi moom lépp loo xam ne mi ngi nekk si internet bi rek dina ñëw teg ko fi ñu waxtaane ko waa ah, maa ngi nuyu waa Touba mhm. parce que lii daf maa ñor démentir bii parce que man Assane da nga ma woo ci ci dix heures cinquante quatre waaw boobu maa ngi Touba toog ci sama benn sànc bu may tabax mhm. dégg di taxaw samay maçon mm-hmm. xam nga <laughs> ah ma sëñ sama maam. waaw Cheikh sëñ Tuubaa mooy sama maam. sëñ mooy sama maam. waaw dëgg sëñ bi. dégg nga sama bàyyi nee na. dégg nga sama baay nee na dégg nga Omar Omar Omar man xam nga lu may xaalis. xam nga lu may xaalis sama xam-xam xam nga lu tax. man damay toog kii télé ak damay toog kii télé ak site internet ne bi sàngam nangam dana am te bu ñu moom. nit ñi loolu lañ bëgg a dégg ah loolu li ko may damaa damaa damaa jaamu tur yàlla fukki at yu ma génnul sama kër baay moo tax nit mbir muy xaw ci Sénégal te xaw ma ko néew na dafa néew yaa ngi commercial de ah ba boo jógee fay leen. yaa ngi jaay bu baax boo jógee fay leen. jërë ngeen jëf yéen tam Omar pour ma xam ne man aw ma yow problème. da waxoon nit ñi gis la rek mën naa wax nit ñi gis ma nit ñi dégg ma. nga waaw waaw waaw problème am na ku ma ci naroon boole waaye jéggal naa ko. waaw may gis. jërëjëf jërëjëf sëñ Modou Asta ñu lay ziar lu bari bari di fëjal suñu kóllëre ak yow lu bari bari mu nekkoon li nga xam ne rek moo di victime di net Assane Mesara ñëw nag daal di invité ki nga xam ne moo di sëñ Modou Asta Mbacké rafet na loolu macha allah ñu ngi lay ziar di ziar tamit